xam nga contumace d'abord en matière criminelle la mooy ñu nga nga def crime ñu def procédure bi yëpp war la juger kenn gisul kenn jàpp la loolu mooy contumace ku nu juger par contumace daanaka tu amoo benn droit au procès soo ñëwee si procès en général am na si man euh, ay juridiction yoo xam ne suñu la fi jugé par contumace obligé à euh, fait son façon vraiment systématique maximum bi lañ lay dóor maximum peine maximale bi lañ lay dóor mm-hmm. parce que compte max dañ ko considérer en fait comme un, un défi à la justice mm-hmm. par compte max c'est un défi à la à la justice te loolu bon c'est pas acceptable parce que la justice aussi c'est une institution boo xam ñëpp a ko war a respecter quoi qu'il arrive mm-hmm. ñu juger la par compte pratiquement li ma la wax tu presque aucun droit sa avocat dinu wax amul kii et donc mais ku ñu juger par compte bis ban la jàppee mën nañ la juger par contumace pour je ne sais quoi mais bis ban la jàppee normalement contumace ba sotti na. maanaam da nga dawoon. da nga dawoon kenn gisu la mais bis bala yoon tegee loxo bis bala état bi jàppee téye la contumace ba sotti amatul te non seulement amatul jugement ban la jugé woon day dee. day anéantir day anéantir jugement boobu amatul suñ ku ñu jugé par contumace te le 10 ans de prison bis ban la nee nepp 10 ans prison yooyu amatul. dañuy donc lay réjugé pour pour pour les mêmes faits. ok mais. même bu dee laa jàpp pour d'autres faits. même pour la jàppee pour d'autres faits parce que l'essentiel mooy yow. day bokk sa dossier su ma jàppee par exemple ñu jugé la pour pour pour contumace pour viol. condamné la dix ans de prison ñu jàpp la si ngay tux yàmba mais nit kooku violé ñu jugé pour contumace moom mooy tux yàmba c'est la même personne du deux personnes. Mm-hmm. donc il a pas de dédoublement de personne c'est la même personne okay. qui a commis deux deux crimes wala qui a commis deux infractions différentes mhm. benn infraction bi jugé woon nañ ko jàpp nañ ko beneen bi kenn jugé gu ko mais jàpp nañ ko si quand même ok léegi bu ñu koy jugé dañuy boole ñaar yëpp mën nañ ko bañ boole sax mën nañ ko bañ boole mais parce que su fekkee ne yamuñu nature mën nañ ko bañ boole mais dañ koy jugé pour euh, li ñu ko jugé woon pour dix ans yi moom boobu moom dee na mhm. koy jugé dañ koy jugé waat léegi beneen bi doog a ñëw. beneen bi après ñu juge waat que si beneen bi sax même ordre de jugement bi dafa am. Mhm. parce que en matière pénale suñu la jàppee par exemple délit bi kii bi la jëkk jàppee boobu la lay jëkk jugé après beneen bi. soog ok mhm. léegi contumace lan mooy contumace parce que cas bi ñuy wax ni. ki ñu doon jugé. non non non loi bi dama ni kan le contumace c'est qui parce que. c'est la personne. waaw la personne mais. Ah. xam nga cas bi ñuy wax lu tax mu complexe mooy ba ñuy jugé nit ki. nit ki xam nañ fi mu ne. Ah. parce que ay policiers ñu koy garder. Mhm. bu génnoon rek ñu jàpp ko mais xam nañ fu mu ne. est ce que foofu non du su génnee du ñu jàpp ko mënoon nañ dugg jàpp ko sax. waaw mënoon nañ dugg jàpp ko mais est ce que foofu mën nañu wax contumace. Euh, difficilement la ñuy wax euh, la ñuy wax foofu contumace parce que en fait euh, xam nga état c' est vrai dañ ko jox ay pouvoir surtout pour les décisions difficiles. Euh, la force publique l'État a le monopole de la. violence de, de la violence légitime de la kii donc cette force publique là su ñu ko joxee. dans euh, ces conditions yi l'État doit avoir à l'obligation d'exercer cette mm. force euh, publique. bien tey jii man ñoo ngi ma bëgg juger man leen man du ma ñëw. nee mm-hmm. naa du ma ñëw jour procès ba effectivement ñëwuma mm-hmm. mais xam nan fu ma nekk ñoo ngi taxaw sama buntu kër mm-hmm. mais kooku man dañ ma war jël yóbbu ma. parce que loolu c'est-à-dire état de contumace boobu état waru ko war waroo ko nangu. pourquoi ñuy ku ku toog euh, un délinquant ñu koy ñu koy recherche suñ ko gisul c'est pour mettre fin à sa situation de de de cavale de fugitif moo tax ñu koy recherche mais nag ki nga xam ne amatul recherche ma nga fa da ngay jël yóbbu